alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijnaa min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi wa xathin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika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 di leen ziyaare bu baax di leen baalu àq di leen baal tey ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal ñaan mu nangul ñu sunuy jaamu yépp di ñaan mu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppe al misbaax yi ñoo ngi beral ab nuyoo jàngkati alxuraan yi di nuyu jàngalekati alxuraan yi ñoo ngi nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi. di leen jaajëfal bu baax di békki ni ngeen di wétali koo jotaay bi di ci ànd ak ñun saa su nekk di ndokkeel bu baax kilifa yi nga xam ne saa yuñ daaneele rek ñu feeñal seenu cofeel ci jotaay bi waaye jaajëfalit ñi nga xam ne waxtu wii li muy teel-teel ndax digganteem ak julli gi xaw naa am ay minit waaye dana leen fekk jóg def yitte ngir jubóog seen borom subhaanahu wa taala ndax waxtu nangu ñaan la yal na yàlla nangu ñaan yi maa ngi sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax ngeen fasaale ñu ñun tam ñoo ngi leen di fasaale yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def ko ci réew yi ñu wër am na ñoo xamante ne lu mu teel teel rek eh, boo dooree ñu door ànd ak yow baba ba ngay noppi nga xam ne wétal ngay doon ci ñoom mbokk wax na ma ko ci barki démb bi ma joxee numéro bi ci jotaay bi yàlla xam na ne dem naa ba mu yàgg mbir mi yéem lool ndax. Euh, léeg-léeg sax nga jot réaction yoo xam ne xamoo woon ne nit ñaa ngi bàyyee xel noonu jotaay bi te loolu ak soññee lay doon bu rëy rëy ci ñun léeg-léeg nit woo soññi la lool léeg-léeg nit woo ñaan la bëgg a bëgg nga dégg ci ne am na ñoo xam ne it ñi ngi lay dégg te déggoo leen ndax du ñëpp ñoo mën a wootee noonu te it du ñuy woote ñëpp ñooy jot ala kulli xaal ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di ci beral ab nuyoo suñu wëlëre sëriñ baara sëriñ Baara ba suñ Modou Faati xëy moom mi ngi fii dend ak rajo bi nga xam ne daanaka buñ fayoon micro yi sax xëy na am na nuñ woon yëkkatee suñ kàddu mu dégguñu ndax suñu dëkkandoo la waaye di soppe ci jotaay bi lool ñu koy nuyu tey nag mu nuyoo daara ji yëpp teg naa ko ci loxoom mu nuyul ma soxnaam soxna Daba Jaane ak waa kër gi yëpp mu mel ne maa ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu rafetal te ku nekk xam na ne rafetal lu am solo la ci àdduna mbokk yi diggante yu baree bari mi ngi yàqu te ñàkk rafetal moo koy yàq moo xam ay mbokk la moo xam eh, ñu uh, doonuti mbokk la moo xam ay nekkandoo lañ jamono ji li li yàq bari na lool li ñu ñaawal bari na lool te rafetal am na solo dégg naa xale yi sax di ko woy naan mi ngi ñaaw di ma ne leen ëpp naa def mi ngi rafet daal nañ fexe ba mu yaatu nga xam ne mi ngi rafet di bu ko defee ñu ne rafet na ba noppi wala mënatu fee gën a rafet waaye tey moytu muy ñaaw di ñaaw rek ndax loolu gënut indi naa ay aaye alxuraan yu bari yoo xam ne day wax ci wàllu rafetal aay yu baree baree bari yoo xam ne day wax ci wàllu rafetal te aay yi jeexut ma bëgg a ñëw nag ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom itam jàngale na lu rafet ba tàyyi dundam gi yëppit ci lu rafet rek la nekkoon alayhi salaatu wasalaam ba noppi joxoñ ci lu bari soññee ci lu bari ahadis te mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu alxuraanul karim jàllee moo ci topp ndax moo ñuy firil alxuraan maanaam liñ doon waxtaan bay wax fayug ñuy rafetal rafetal fi ko yàlla teg aay yi nga xam ne ñooy waxtaane rafetal yépp bi yi daanoo nga ñëw ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nga xool nan la ko doon dunde ak saxaaba yi waaye nan la doon firire rafetal ci suñu dund ak nim ñu ko doon digale xadis bi may njëkk a indi te abdullahi ibnu amr radiallahu anhuma nettali ko imaam buxaari indi ko imaam muslim indi ko ca seen téere ya abdullahi ibnu amr nee na jenn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam aqbala rajulun ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ubaayicuka ala alhijrati wal jihaadi abtaqi al ajra min allahi nee na waa ji daa ñëw jàkkaarloo ak ku baax ki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi jaayante ak yow maa ngi jaayante ak yow mooy maa ngi joxe sama sama kaddu maa ngi joxe sama engagement ci ànd ak yow gàddaay bu ñu waree gàddaay foo ne nañ fa dem pare naa pour ñu dem fa maa ngi joxe sama engagement it ci ànd ak yow ci jihaad mooy xare ci yoonu yàlla loolu nag maa ngi koy maa ngi ko def ngir sàkku ci payuk sama borom subhanahu wa taala est-ce que waa ji engagement bi la joxe yonent bi daal di koy nangu ba noppi daal di koy laaj ab laaj ne ko fa hël min waalidayka ahadun hayy ne ko ndax sa ñaari wayjur am na ci kuy dund ndax sa ñaari wayjur am na ci ñoom kuy dund waa ji ne ko waawaaw naam bal kilaahuma ñoom ñaar ñëpp nga ca kër ga samay wayjur ñoom ñaar ñëpp nga ca kër ga yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko afa tabtaxil ajra min ndax da ngay sàkku ak pay ci yàlla ndax li nga wax nii nga xamante ne eh, fayu yàlla rek rek rek nga ci bëgg ci gàndaay gi ak jihaad ji waa ji ne ko waaw yonent bi ne ko farji ila walidayka fa ahsinu suhbatahuma dellul ci sa ñaari wayjur nga rafetal ni ngay nekkee ñoom boo rafetale jëm ci say wayjur rek am nga tiyaabay ku gàddaay am nga tiyaabay ku jihaad sallallahu alayhi wa sallam waaye baat bi boo xoolee baatu nga rafetal jëme ci ñoom la wax kon rafetal jëme ci say wayjur wabil walidayni ihsana alxuraan ñu ko waxoon waaye yonent bi joxoñ ko nit ci dundam ku ne xam na ne jihaad ak gàddaay ci ëpp solo ci lislaam la bokk ndax moo tax diine ji agsi fii ba tey waaye waa ji bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam damaa jaayante yow ñaar yi bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndax sa ñaari wayjur am na ci ñoom kuy dund waa ji ne ko waawaw ñoom ñaar ñëpp ngi dundu mu ne ko bu fekkee tiyaabay fayu yàlla rek nga bëgg jërul sori yow moom rafetalal rek jëm ci sa ñaari waajur am payu yàlla mbokk yi ku am ñaari waajur waajur yuy dund loo ñaanati ne da nga caa bëgg a am ngërëmul yàlla te teggi leen fa leneen nga bëgg waaye bëggoo ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla moom amee ko ci ñaari waajur dara lu ko gën a gaaw amut nit ki amee ko ci ngërëm amee ko ci ay waajuram dara dara dara lu ko gën a gaaw amut am aljanna mi ngi gën a gaawe ci nit ki rafetal jëme ci way juróom am teraangay àdduna mi ngi gën a gaaw ci nit ki rafetal jëme ci ñaari way juróom amuk pal ci àdduna mi ngi gën a gaaw ci nit ki rafetal jëme ci ay way juróom am jàmme àdduna ak alaaxira mi ngi gën a gaaw ci nit ki rafetal jëme ci ay way juróom moo tax borom bi subxanahu wa taala moom jaamu ko la wax waaye topp moom mu jiital way jur yonent bi alayhi salaatu wa salaam firi ko fii waaye mu ne na nga rafetal ni ngay nekkee ñoom. tegtaloowul ne say waajur danga naan tabaxal naa leen kër wala yóbbu naa leen màkka waaye mën ngaa def yooyu ba noppi rafetaloo nit ñàkk naa def loolu nag nga xam ne joxewut alal xëy na amu ko wala joxewut alal ndax dafa am yuy dàqal waajur alal léeg mu toll ci aaf boo xam ne yëg ko lay bëgg yëg maanaam yëg gi ngay am ci moom moo ko gënal li nga koy jox léeg-léeg waajur toll ci jamono joo xam ne nga topp ko lay bëgg maanaam mu digal la nga def moo ko gënal nga jox ko milliard dana am fu muy tollu du soxlaati mu lay digal ngay def mais day bëgg nga yëg ko rek ndax xam na ne li nga war a def lépp xam nga ko léegi ki toll ci way jur digal ko mu bàyyi fa digle la bu koy wooyee baay ak ñëw di indi joxe yëpp day mel ne daa mooy ay ndigalam te rafetalut nam ko moye moo tax wasaahib huma fi dunya maxruufa alxuraan daa waxoon ne sa ñaari waajur bu fekkente ne dañ laa digal loo xam ne njëkkadi la loo xamante ne dëppoo wuta ngërëmul yàlla loo xam ne ak bokkaale la alxuraan ne bu leen ci topp de yàlla nee na maay patron waajur yi nag damaa bëgg nga respecté ma ba noppi ne ma fan laa jëm man la xëyal ci sa tool baay ak sa tool yaay waaye bu fekkee da ngaa njëkkee ci sa baay ak ñu xëyloo la feneen foo xam ne damay bañ foofa yàlla nee na bu fa xëy bu fa xëy de bañal waaye nag bañ gi na rafet ba léegi ni ngay bañale waajur du bokk ni ngay bañale ku dul moom waajur moom doo wax ne paa bi dafa doy waar léeg nga di gars yi di ko wax di baat bi laa mënta jëfandikoo rek paa bi moom dangay waaru ah yeex ngaa waaru maire bi moom ah, ay mbiram kenn xamu ko yeex nga koo umpule wala wala dañoo bëgg daal nga rafetal ni nga xam ne noonu ngay àndeek ñoom xadis bi ma njëkk indi ci rafetal mbokk yi loolu lañ ciy déggee déggin wu yaatu mu ne na nga rafetal ni ngay nekkee ñoom am na waajur woo xam ne boo wàccoon jaar néegam nuyu ko rek xolam sedd na xolam sedd na waajur woo xam ne soxla wut a xam fa nga jëm loo fay defi waaye tàggu gi nga koy tàggu ne ko baay damaa bëgg xëy dem cees wala damaa bëggoon a xëy dem dem e, dem Ndar nga ñaanal ma moom sedd na xolam am na waajur woo xam ne day bëgg nga wax ko la nga fay wuti ndax moom foofu la foofu la toll day bëgg nga wax ko la nga fay wuti ba noppi mu doon tàggoo te bañ a doon yëgle waaye ala kulli xaal dañuy faral di wax ne ki am ñaari way jur yoo xam ne sax nag dañoo naqari deret ngeen baal ma ndax léeg-léeg mu am ci waajur yi waajur yu compliqué nag yu naqari deret waaye yow borom bi subxanahu wa taala jàppandilal naa la ajana ndax gis nga benk ñenki yooyu ak loolu nga tuddee naqari deret muñ gi nga koy muñ fas ko yéenee eh, yanu loolu moo lay yëkkati ba faaw kenn nag mënta toroxal ay way waajuram wala mu ñàkkee leen worma ba noppi di am worma yàlla xam na ko lu lay nuru worma rek ay jay waaye toroxtaange moo nekk ci gannaawam loolu mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy njàngaleem suñu borom subxanahu wa taala mbokk yi xadis bi di wax ci lu jëm ci wàllu topp jur waaye nag di wax ci wàllu rafetal jëm ci ñoom ñaar ndax rafetal lay wax rek moo tax xadis yi nga xam ne yonent bi da cee digle rafetal ma ma koy jéem a indi waaye njëkk cee indi bi nga xam ne Abdullahi Ibnu Amr radiyallahu anhuma moo ko nettali. nee na aqbala rajulun ila nabii sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ubaayi'uka ala alhijrati waljihaadi abtaqi al ajra min allahi qaal fa hal min walidayka ahadun hayy qaala naam bal kilahuma qaal afa tabtaqi al ajra min allah qaala naam qaala farji ila walidayka fa ahsin suxbatahuma demal ci sa ñaari wayjur nga rafetal ni ngay nekkee ñoom waaw nga gis koy koy naw lool nga waxtaan ak moom mu lay delloo ca ka yar di la delloo ci ay delluwaayam léeg sax mu doon wayjuram léeg-léeg mu doon kum jàppee wayjur nga xam ne daa am wàccu waaye wayjur ci moom waaye mu déggal ko topp ko topp ko tarbiyewu ko tarbiyewu ko waaw ñi ngay gis te di leen naw ñëpp nag dañoo nangu woon a toppee moo tax tey ñu topp leen. allahuma rek dañ ci daan topp nit ànd ci ak moom ànd ci ak moom ànd ci ak moom ba mujj yàgg fu ñu toog mbooloo wër leen waaw suñu wëlëre wu baax wi sëriñ Moustapha Dem ci Jurbel mënoo toog wax ak moom ñaari baat ñett te tudd la sëriñ Abdourahim Dem ndax fam jaar ak moom noonu noonu noonu kilifa yu baree baree bari noonu kon sa ñaari wër ju dellul nga rafetal jëm ci ñoom beneen xadis bi ci topp ku ñuy wax Saïd Saïd ibnu euh, Abi Saïdin al-Khudri laa bëgg wax Abi Saïdin al-Khudri radiyallahu anhu nee na dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy wax naan muy wax mooy loo xam ne da ko daan wax lu bari ida aslama al abdu fa xasuna islaamuhu yukaffiru llahu anhu kulla sayi'a nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne képp koo xam ne saa yu jaam bi jébbalee boppam boroomam maan saa yu jaam bi duggee ci diine ji ba noppi rafetal rafetal lislaamam dégg nga rafetal ba ci ba ci sa lislaam sax dañoo bëgg nga rafetal ko lislaam ju rafet yoo xam ne julli ca waxtu wa ak yam àndal koor ca nañ ko diglee ak nu mu àndal fekk saw làmmiñ ca nu nañ ko digle ak dëkkandoo ca nañ ko diglee ak ñaari way dencante yi ca nañ ko diglee sa àqi bopp ci niñ ko diglee ni ngay lebe ca na ko diglee booy fay bor bu dee da ngay yelwaan bu dee da ngay saraxe bu dee da ngay laaj bu dee da ngay joxe nga xam ne dangay ngay sa lislaam rafetal sa lislaam mooy looy bëgg def nga laaj lu ci lislaam wax ab julit nay laaj loolu yow mi bëgg a yiw bëgg am comportement wu jullit dëgg-dëgg laajal sa bopp nag looy bëgg a def rek lu ci lislaam wax da ngay bëgg dugg ci toilette bi lislaam lu mu wax ci kuy dugg ci toilette mun la jiital la sa tànku càmmoñ musulul ci seytaane nga def ko gis nga yaa ngi rafetal nga xam ne yow jullit buy dox nga lu lislaam wax bi ngay bëgg a toog mun la waxal bismillah bi nga toogee ba dal mun la waxal alhamdulillah lu lislaam wax ci kuy bëgg a naan mun la naaneel sa loxo ndey joor bi bul naanee sa loxo càmmoñ lu lislaam wax ci ab jullit buy dox mu ne bul dox di mel ne kuy daw wala ngay geesu di wiir wiiri boo rombee ñu toog na nga leen nuyu ku la nuyu na ko fay waaw ku la nuyu na nga ko fay islaamuhu rafetal na rafetal na lislaamam boo bëggee ti sooli mu wax la ni nga koy defee boo noppee santal yàlla boo bëggee tëdd mu wax la wet gi ngay tëddee léemul boo bëggee lekk mu wax la ne waxal bismillah lekkeel sa ndeyjoor lekkal ci sa kanam nga xam ne waa ji rafetal na lislaamam loolu daa rafetal léppam nee na suñ borom jéggal ko bàkkaaram yépp mbokk yi rafetal googu am na solo te nee na alxasanatu bi ashri amsaaliha ila sabi miati dafin nee na benn bu rafet dañ koy ful fukk koy ful fukk di ko ful ba ci juróom-ñaar téeméer waaw ba ca juróom-ñaar téeméer ñaaw ñaaw nag moom benn dong lañ la ciy fay benn dong lañ la ciy fay rafetal a ngi noonu beneen xadis ngi nii boo xam ne day wax ci wàllu rafetal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ko imaam Buxaari ak muslim yëpp indi ko ci seen téere ya abi muusa radiallahu anhu euh, jële ko ci ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ñii danañ leen jox seenu fay ñaari yoon danañ leen fay seenu seenu pay danañ danañ leen fay ñaari pay euh, mu ne salaasatun yu taw na ajrahum marratayni danañ leen fay ñaari yoon ñaari tiyaaba ba ci njëkk mu ne rajulun min ahlil kitaabi aamana bi nabiyihi wa adraka nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa aamana bihi wattabaahu wa sadaqahu fa lahu ajraan nee na koo xamante ne daa bokk ci ahlul kitaab ahlul kitaab mooy ñeen joxoon téere benn muy ab siif wala muy ab chrétien muy ab yahud wala muy ab nasaraan muy dem nag ba mu yàgg wooteb yonent yàlla Muhammad dab ko nga xam ne ca loolal nekkoon nekk gu wér waaye bis ñëw mu dégg njàngaleem lislaam gëstu ko mu leer ci boppam mu daal bokk ci diine ji yàlla yónni yonent yàlla Muhammad yonent bi nee kooku dañ koy fay ñaari yoon day am ñaari tiyaaba lam nekkoon tiyaaba la lim dugg si itam da ciy am tiyaaba ju rëy waaw xam nga nit dana nekkoon ci caaxaan ya tuub loola dañ ko ko jéggal waaye fayuñ ko ca kii nag lam nekkoon day nekk tiyaaba lim duggaat nekk tiyaaba kon kooku dañ koy fay ñaari yoon nee na keneen ki ci des mooy abdun mamluukun addaa xaqa allahi taala wa xaqa sayidihi fa lahu ajraan nee na jaam boo xam ne dañ koo moom jaam boo xam ne dañ koo moom koo xam ne dañ koo yilif waaye mu matale àq yàlla ba àq yàlla ji mat mu góorgóorlu ba matale àqi ab sangam kooku ñaari tiyaaba lay am waaw bu dee ab jaam ba jamono di jaam bu dee doo ab jaam mooy ku ñilif nit mën naa ñëw ci barab ñu ne ko nangam lañ lay fay ngay liggéey mooy moo tax léeg-léeg buy dugg yenn barab yi ñu ne ko doo fi dugal ab saak sañoo fee yor téléphone sañoo fee def nangam ndax lan sa waxtu yooyu danga koo jaay yow yaa ko jaay kon dañ ko moom waaye mu góorgóorlu nag ba matale àqi boroomam subhanahu wa àq yàlla jëm jëm ko gàll mu góorgóorlu ba farata ya mat àqi engagement bi mu jëlit mu góorgóorlu ba matale ko ba mat kooku dana am ñaari tiyaaba bi ci mujj nag te indi baat bi tax xadis bi ma indi ko muy baatu rafetal mu ne rajulun lahu ammatun fa qadaaha fa axsana qidaaha thumma adabaha fa axsana adabaha thumma axtaqaha wa tasawajaha fa lahu ajraan waaw taxu koo yomb boobu waaye bur won aada mu yomb nee na góor goo xam ne dafa am jaam bu jigéen dafa am jaam bu jigéen mu yor ko dundal ko nekk ak moom te rafetal nekkin wax yar ko te nam ko yare yar bu rafet gannaaw ba mu goreel ko mu nekk as gor mu takk ko def ko soxna nee na kooku am na ñaari tiyaaba allahu akbar allahu akbar waaw mu nekk ak moom dundal ko ca dundin wa gën a rafet yar ko yar ba gën a rafet moo tey boo ko doon misaal ne misaal mais danga naan koo xam ne daa am ab jànq koo xam ne daa am ab jànq waaw ñu bari nag duñ ko nangu wala sax mbambu lañ ci ragal far jànqam bii di liggéey ci kër gi jànqam bii nga xam ab jigéen lay doon di liggéey ci kër gi waaye mu yamale koog njabootam mu yamale koog njabootam nga xam ne Euh, moom du ko ber du ko ber mukk du jàpp ne daa war a tilim waaye bu doon doomam ju jigéen a fi nekk ni muy jàppe doom ju jigéen ji noonu la koy jàppe la muy lekkit la jànq bi lekk la muy naan la jànq bi naan tëddukaayu jànq beet du ak mer gàddu wala ak basang wala suufu escalier yi wala néegam bi dangaa jàpp ne sax fenêtre bi moom bu amut ay giri sax garawut ndax moom mel ne du yëgi yoo desal ko ginnaaw déedéet waaye dangaa rafetal ni nga nekkeek moom ba noppi rafetal ni nga ko yare am na jànq yoo xam ne daanuñu julli waaye kër gi ñu liggéeyee kooku da leen a jàppe ne doomam bu julli jotee nam cay soññee doomam la leen cay soññee bu weer dee wala bu euh, bu weeru koor jotee na muy soññee njabootam la leen cay soññee ak colit na muy solaleeg njabootam ci col gu jot noonu la leen di sonnee soññee ci col gu jot rafetal seenu waxin ba ñu ñëw xëy na kàddu yu doy waar lañ indaale woon ndax ci mañ yaroo wala seen seeni jaar-jaar waaye bi mu ñëwee nag mu rafetal ni mu leen yare mu rafetal ko yemut ca loolu nee na mu goreel ko goreel mooy tey mu mel ne mu jox ko ab liggéey wutal ko liggéey maanaam wala mu jàng wala wala mu yóbbu ko mu jàngi defal ko formation maanaam nga xam ne jox na ko lu gën euh, position bi mu nekkoon nee na ba noppi takk ko takk ko def ko soxna nee na kooku ñaari tiyaaba lay am ñaari tiyaaba lay am waaw ñun na tiyaaba moom léeg lekk Eh, bii moom xam naa dañ ñaan mën nañ ma ko baal ñoom dañ ñaan oustaz tem ñu wàññi rajo bi sax ndax bañ eh, kilifa gi dégg ko jàpp ne dañuy wax ne sañ ngaa takk takk bi <laughs> sañ ngaa jànq bi ndax léeg-léeg man mu takki woon ci àll ba sax moom ma gënal mu takk jànq bi ci kër gi ah doy na waar de suñu mbiri bopp la waaye daal rafetal rafetal googu ne ci biir moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñett ñi ñoom li tax ma jàng ko xadis la boo xam ne imaam Buxaari indi na ko imaam Muslim indi ko abi Muusa radiyallahu anhu dégg ko ci ku baax ki yonent yàlla Muhammad mu ne ñett ñi sama borom dana leen fay ñaari yoon ki bokkoon ci ahlul gëm ab yonentam mu yonent yàlla Muusa wala yonent yàlla Isa waaye woote bi yonent yàlla Muhammad dab ko mu gëm diine ji topp yonent bi te dëggal nee na kooku dana am ñaari tiyaaba jaam bi nga xam ne daa nekk ku sangam waaye mu matale àq yàlla ji ko war matale àqi sangam bi nee na kooku dana am ñaari tiyaaba ki nga xam ne dafa am jaam bu jigéen nekk ak moom nekkin wu rafet yar ko yar bu rafet gannaaw ba mu goreel ko denc ko mu nekk soxnaam kooku dana am ñaari tiyaaba léegi nag li ma ci doon dugal yépp mooy commentaire yeeg déggin weeg gën a yaatal waaye lii mooy yaxub xadis bi liñ ciy déggee kon mooy rafetal am na solo lool ci nit ci ki nit ki nekkal moom laa doon misaal noonu ci muy lekk la ngay lekk am mm, di naan ca la ngay naan waaye nga rafetal ni nga nekkee moom am na ñoo xamante ne sax duñ tudd tur woo waaye ci turam la ñuy jaar am na koo xam ne bu da doon présenté nit sax du la wax ne mooy sama chauffeur wala mooy sama garde corps mën na laa wax ne mooy sama mbokk mi ma àndal ndax daa bëgg rafetal kàddoom daa bëgg rafetal kàddoom waaye mooy bon bi kii mooy kii mooy sama bon bi kii moy sama booy bi xam naa bu fekkee tiitaroo tax de moom jëru ko ndax yow mënoon nañ laa wooyee loolu te fa ngay liggéeyee te wooyee wuñ leen ko donte nag moom itam bu comprendre man naam du ko déranger ndax ñoom boo leen wooyee woon loolu du leen déranger waaye yow mi rafetal rek yaay xool euh, li yëkkati nit nga di ko yëkkatee noonu te bañ a boole ñaar suufeel ko ci liggéey ci tëdd mu lay xitmaal ba noppi suufeel ko ci kàddu di jël kàddu yi gën a suufe di ko askanale loolu itam bu boobaa du bokk ci li nga xam ne moo gën mbokk yi ñetti xadis ngi nii yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ciy wax lu jëm ci wàllu rafetal ak yi nga xam ne moo ci aju buñ yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba ak jàmm mu teweesu ko daañu dikkaat ci yeneen xadis yoo xam ne eh, rafetal ci boppam lañ ciy déggee te yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd ci baat bi ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi békki ni ngeen di toppee jotaay bi ñoo ngi leen di baalu àq ñoo ngi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu jàppandilal ñu. mu jàppandilal ñu suñuy xéewal jàppandilal ñu euh, mboolem yi nga xam ne ay pajuk aajo la te musal ñu ci lépp loo xam ne fitna la lépp loo xamante ne ñaawal la te xiir ñu ci ñu mën a rafetal jëme ci nit ñi rafetal jëme ci suñu bopp ginnaaw bi ñu rafetalee jëme ci suñu borom subhaanahu wa taala ba noppi ñoo ngi leen di jaajëfal jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune sàll moom la ñuy bàyyee toogu bi dégluwaat waxtaani fajar yi ndax moom jamono ji mi ngi ci conseil ñu ngi koy nuyu di nuyu baax baax waa Italie ga mu nekk soppeek am di jàmm yépp di ko ñaan borom bi defal ko tukki bu barkeel tukki bu ànd ak koom-koom waaye ànd ak message ul bu tasaaroo allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullah